fay mi mi sama nee na mu ne fa nee na bay mu wax Serigne Ndiaye ni nee nga bijante leen ba ñu sori lool nee bi nga wàññee ko nee na boobu sama fay mooy jawri nee boobu mooy jawri bi daayira ji nekk Dakar mu wax Serigne Ndiaye ni ndax xam nga li wolof Njaay di wax ni nangu jël na cëru bañ si Njaay ne waaw xam naa ko de mu ne mooy sëñ Asan mii nee na li sama fay nar a am nee na sëñ dina ko jël ndax da koo gën a nangu nee na loolu nag nee na ñëpp teg nañ ci seen bopp nee wax dëgg fa yàlla moom nee na xam na ne nee na yokku nga nee na sëñ Babacar mii nee na yokku na lool sax nee na yow it nee na yokku nga nee na sëñ Seex Jaañ itam nee na yokku na de nee lool nag nee na nag nee na ñaanal yokkute saayir ak baat yi na ci barke si Ismaïla nee na insha allah nee na boo bëggee di nga yokku boo bëggul it di nga yokku nee na loolu moom dina am allah